APR Thiès nag tontu nañ démb génne benn benn bataaxal Euh, ki nga xamante moo di Lamine Ngom di conseiller spécial Macky Sall euh, moom moo ko tàmbale mu ne euh, ñi nga xamante ni ñooy waa AFP Thiès duñu fuuy ndaxte ay poste yu bëree lañ leen jox ñoom dañ ne joxuñu leen ay poste ci loolu la ñuy ci loolu la ñuy kaas boo xoolee Alioune Sarr nekk na ministre pendant presque dix ans ki nga xamante ne mooy Bathie Cissé nekkoon secrétaire général bu APEX e-, tamit defoon nañ ko directeur madame Yéya Ly tamit nga xam moo doon représenté femmes yi ci biir AFP tamit nommé nañ ko Diallo Jean-Marie Diouf bon ñu bëre euh, ñu bokk ci AFP nommé nañ leen donc li nga xamante ne euh, moom la waa ngujaan nekk ci AFP di Mbaye Dione mooy maire Ngoundiane lu mu wax loolu tegu ko fenn ndaxte AFP benn Bokk Yaakaar euh, surtout président Macky ñoom dañ ko war a dañ ko war a respecter euh, te ñoom dañu war a liggéey ngir ànd ngir tabax loo xamante ne ngir tabax euh, Thiès ndaxte mbir mi malhonnêteté malhonnêteté la di wax yoo xamante ne tegu ko fenn ndaxte président Macky Sall ku gis compagnonnage am durant depuis 2012 ba léegi ak Moustapha Niass xam ni jox na gëdd ñi nga xamante ne waa AFP wax jooju teguwul euh, fenn waa benn Bokk Yaakaar bu nekk Thiès ñoom ñoo ko répliqué. kon daal pëccoxoo bi c'est entre eux. ah doy na ah, ñoom la seen i biir euh, Paris nag mu ngi tàmbali son mhm. sixième forum sur la paix et le numérique. waaw président Macky Sall en ce moment mu ngi euh, Paris tey jii la war a commencé muy sixième forum Paris ñu koy jagleel jàmm. Mhm. ak lu nga xam paix ak lu nga xam moo jëm si réseaux sociaux yi internet waxtaanee loolu ay organisations internationales yu bëri yu bëre kilifa yu bëre war nañu ñëw Paris euh, tey ak suba ngir waxtaanee mbirum jàmm stabilité démocratie ak lu nga xamante ne moo dem wàllu économie euh, ci lu nga xamante ne moom mooy si suñu dëkk yi président Macky Sall nag moom foofu la dem ànd ak ñi nga xamante ne moom mooy soxnaam di Marème Faye Sall euh, ñu ne rencontre tamit yeneen objectif yi moom mooy discuter ci lu nga xamante ne moom moo di wàllum àll bi environnement na la ñuy def ba préserver ko ndaxte boo jëlee am États-Unis Chine Europe Afrique war soxal na leen superpuissance yi puissance émergente ak ñi nga xamante ni ñoo représenté yenn régions yi ñoom tamit war nañ si participer ndaxte àdduna bi soxla na ko euh, tey jii Euh, ci loolu la ñu war a discuter muy jàmm ak lu jëm ci internet bi. enfin une solution pour rek ñuy mën di denc soble bi nga xamante ni fii lañ koy bayee ci réew mi. waaw soble bi nga xamante ne euh, baykat yi dañ doon demander ne la plupart amuñu ay euh, ay stock ay silos de stockage yoo xamante ne dañ mën a conserver soble bi sinon day yàqu ndaxte trente à trente quarante pour cent su suy si ay récoltes. Euh, nee nañ dañ koy perte à chaque fois et puis loolu euh, dañ doon demander ay silos de stockage euh, wax na am na benn convention boo xamante ne nag partenariat la entre ñi nga xamante ne ñoom ñuy exploiter. Euh, ñu nga xamante ñoo exploité oignon bi ak société d'exploitation marché international moom mooy euh, euh, moom mooy Semig faatumata Ba di koy di koy jiite ñoom dañ leen defaral benn silo de stockage benn entrepôt de stockage d'oignon boo xamante ne mille tonnes lay def Fatoumata Ba ne lu baax la ndaxte dafay jëmal lu nga xamante ne moom moo di suñu bàyyi et puis sécurité alimentaire bi si tamit ñu préserver ko mhm. ndaxte Euh, loolu dafa soxal ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa producteurs yi soxal tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy consommateurs yi ndaxte suñu ko defee dina yokk bu baax a baax mbay mi yokk bu baax a baax euh, oignon bi ba nga xamante ni kenn dootul kenn dootul plaindre. jërëjëf Pape Malick Thiam li nga mujj wax am na solo dana tax soble si ñu mën di ko denc. mu mhm. bañ di yàqu euh, ça c'est une bonne nouvelle pour mhm. les. les ñi nga xamante ni ay producteurs lañu. Mm-hmm. ci wàllum soble. Mm-hmm. alors dañuy enchaîner rapidement ci dossier bi nga xamante ni comme chaque vendredi euh, dañu koy proposer. Mm-hmm. léegi léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.